étoile jamono ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar saa su nekk ñuy wax Joal act euh, saa su nekk ñuy waxtaanee actualité yi nga xam ne moo xew fi ci Joal Fadiouth euh, di leen wax ni wéy leen di abonné tey nag ñu fi dalal kilifa kilifa goo xamante ni kenn dootu ko présenté ci commune bu Joal Fadiouth mu tudd saada saada Aw nag munoo ko wax te sa xel demul ci napp gi demul tamit ci économie Joal Fadiouth ak demul tamit ci politique gu Joal Fadiouth muy kilifa gu màgg kilifa gi Sada maa ngi lay nuyu di la dalal di waaw ji li maa ngi lay euh, fay. Mhm. waaw ginnaaw bi ma bi ma bi ngeen ma invité. Mhm. waaw di la nuyu di la sargal. Mhm. yow ak euh, Jean wax dëgg neex yàlla di rafetlu étoile jamono yi ni muy doxee. parce que de temps en temps ñu ngi teewlu ñu ngi déglu ñu ngi dugg ñu ngi déglu ni muy doxe di wax ne wax dëgg neex yàlla ñu ngi ñu ngi rafetlu daal. waaw di rafetlu encore teewaay bi nii. actualité bi nekk fanaan Sada Aw. moo li saa saa dañuy wax problème mu fanaan. ñii ni fanaan war nañ ko tëj ñii ni waruñu ko tëj. ba tey jumul ma juumul ñu ngi ci le ñu ngi ci mois de ah, mai donc booy xool taw bi jege sina na fan la fanaan bi toll da ngeen koy tëj wala nga ci mën wax xam nga euh, fanaan mën ne fanaanu sénégal dafa am lu bëri loo xam ne ni tey ji état daf si xaw a lajj parce que tey yaakaar naa bu ren bii dafa waroon a nekk loo xam ne ni warul causer benn problème parce que tey bu fekkee ne da nga da nga da nga da nga bëgg wax da nga bëgg jël ay affaire fanan fanaan nga siy wax tey mu ham loo mbiru fanaan la parce que tay souvent fi ñuy ëpp li ñuy parce que bu état jëlee lu melni ay CLPA. mu tëral leen bu ko défé di wax di di coordonner CLPA yi gars di wax chaque jour di wax goudi di wax bëccëg mais dafa melni gaay souvent li ñuy wax des fois dafa melni du am benn njëriñ. Mhm. wala nga xamné day melni day am ño xamné dañuy jog jëlal ay jëlal mool yi ay décision yo xamné ni mhm. des fois mool yi souvent du fekk fa gaay di jëlee yenn décision yi. Mhm. te man gis na né li ñuy def yëpp at yi dañuy nax mool yi. parce que bu fekkee da ngay génnee da ngay génnee arrêté boo nee fanaan dafa war a commencé même si moment bi muy commencé da war a dafa war a ànd ak ne moment bii la ñuy commencé mais moment bii tëj mais lépp li gis mooy dañuy naan décembre la ñuy commencé si biir décembre rek la ñuy commencé la doo dégg ñu weer sàngam la tëj waaw mhm. te chaque jour chaque moment yi mi ñu ko def yëpp day am problème boo xoolee si moment bii may waxee ak nii nee nañ ñu ngi commenté ñu ngi commencé woon première décembre lañ commencé woon. même bi ñuy waxee ni mois de mai ñu ngi si mois de mai tey am mënuñu ne arrêté génn na. Mhm. kon affaire bi dafa mel ni loo xam ne ni dafa am loo loo xam ne si biir. Mhm. waxuñu nit ñi dëgg. Mhm. te dafa war a nekk loo xam ne tey fanaanu ren bi te bu fekkee ne dañu war a dañu dañu fanaan ñu fii may waxee ñu ngi si six mois. te année bi nekk douze mois. kon dafa war a nekk loo xam ne dafa waroon yomb si askan bi. nan nga jàppee ni fanaan bi ban waxtu lañ ko waroon a tëj yow en tant que mool fanaan bi bu commencé décembre kañ la war a tëj. xam nga tey jiili bu fekkee ne tey dañu bokk géej gi ñun ñëpp di liggéey tey boo waxee moolu gaal gu ndaw di nga wax Fila Touré di nga wax fele fele pour mu pour ñu defar mhm. man dama jàppoon ne ren waruñu am benn problème mhm. parce que bu fekkee ne weer bi douze mois la mhm. kon tey dama bu ñu bu ñu fanaanee six mois dañu war a tëj mbaali bëccëg six mois kon de mais fii moment bi ñu waxee ni tey boo xoolee mois de mai bi ñu nekk ni moo nekk sixième mois bi mhm. kon tey dafa waroon a nekk loo xam ne dañu waroon a arrêté fanaan bi waaw moo waroon a nekk 31 mai rek fanaan mhm. dafa waroon a tëj mhm. premier juin benn gaal waru fee warul war a dem mbaali guddi di fi teeraat bu dépassé loolu ban conséquence la mën a indi bu dépassé six mois yi xam nga bu dee nga tey mois de mai bi ñu wax ni dèjà rek commencé na signaler ñu ngi dugg si nawet te ku wax nawet wax ay incendie kii yoo xam ne nii ay jafe-jafe yoo xam ne nii tey ay ngelaw ay mauvais temps souvent te xam nga ne nawet euh, nawet moom waxuma la dara mais kenn waru see mën a fanaan te moment bii ñuy wax ni tey ñu ngi si mois de mai bientôt xam naa ne balaa ñuy génn mai bi ñu ngi séentu ndox mën naa taw te ku nekk xam na ne géej amul bànqaas te danger yi ëpp doole yëpp nawet lay ëpp li muy xew moo tax si moment bii ñu wax ne ku nekk xam na ne mois de mai bi ñu wax sax warul bokk si fanaan leen dal ay cas yu garaaw di fa am yàqante bi tojante ay matériel ba ci saa saa sax jamante di am loolu lan la la moo tax fanaan di tëj fii di tijji fële saa saa ñu ni jifir tijji na Joal tëj na lan moo waral loolu. xam nga xam nga tey loolu li koy waral mooy intérêt personnel bi. parce que tey bu fekkee ne xam nga chaque jour dama koy wax secteur de la pêche bu fekkee ne ñun dañu wax ne ñu axlu mool mhm. dañu woote pour nekk benn dafa am loo xam ne waratu la compliquer ñun suñu biir mhm. tey mool dafa am loo xam ne du problème bi mareyeur parce que mareyeur moom li muy gis mooy jën bi nay ñëw rek moom muy jënd jën bi mhm. mais ñun mool ñu ñoo war a defar géej gi te niñ ko war a defaree weer bi man dama ne douze mois la douze mois lañ ko séddoo si digg bi ñiy jël six mois ñiy jël six mois moo tax ma ne état souvent dañuy nax nit ñi si moment bii may waxee ni ñu ngi jàppale douze dañu war a def évaluation te évaluation war a war a def noonu imaginel ñu toog ba ñu ne mois de mai dañu war a arrêté fanaan a def évaluation kon xam nga loolu naxee mbaay la li ñu waroon def mooy douze mois la douze mois la dañuy jël six mois bëccëg jël six mois guddi ñu yemale ko ñu dagg ko si digg bi amatul évaluation amatul dara ñu tëj ko foofu est loolu toog ngeen waxtaane ko non chaque jour ñu wax ko chaque jour ñu wax xam nga souvent nit fi nga war a waxee rek ngay waxee. Mhm. mais fi fa ñu fa ñu war a fa war a jëfee nag mhm. souvent la ña war a jëf ñoom ñooy jëf. d' accord ah. sax dama dégg nga ni intérêt personnel la kan moo ci am intérêt mool bi wala baana baana bi wala ñi ngànk port bi wala ñi ngànk tefes gi. boo xoolee tey ëpp dool ñi si gën a ëpp intérêt boo xoolee tey baana baana bi lay doon. parce que tey baana baana yi souvent ñoom ñooy gën a pousser gars yi pour ñuy dem di gën a fanaan beneen bi beneen cause bi day nekk loo xam ne si biir mool yi la parce que mool bi bu commencé jàpp jën moom li muy gis mooy dafa war a euh, moom na am jën rek xoolatul ne maa ngi lor jiili wala maa ngi lor sama mbokk mais man daal comme sama affaire mu ngi baax xooluma ki nga xam ne affaire am baaxul te dafa am loo xam ne ni yow bu fekkee dañu oote pour nekk benn yow sa affaire buy baax sóoraale ne am na koo xam ne affaire am baaxul mm-hmm. kon nag la gën mooy ñu ñu jël affaire bi dagg ko si digg bi. boo gisee nappum Sénégal ba tey mool yi mënuñu nekk benn. parce que ku si nekk sa intérêt rek ngay xool. te bu fekkee ne tàng yaa ngi taxaw sa intérêt dara mënul baax. bu fekkee ne dañu bëgg ne dañu bëgg a booloo nekk benn il faut ñu jël fanaan mi dagg ko si digg bi. 6 mois bëccëg 6 mois guddi. parce que tey jii li bu exemple bi ma lay jox boo boo gisoon ñaar ni tey ñuy xëccoo mille francs nga bëgg a fay coow li nooy def. dagg ko da ngay jël kii nga jox ko téeméer kii nga jox ko téeméer mhm. bu boobaa kenn du ni nga àttee baaxul mhm. mais tey problème yi yëpp mooy état moo sonal parce que maa ngi joxe benn anecdote mhm. parce que dañu am benn moment boo xam ne dañu dañu demoon ñu ne ñoom Habib Ndiaye ñu mel ni ñoom Pape Gueye ak ñoom euh, ñoom Ahmed Wade ñu jóge fii dem euh, dem Dakar bi ñu demee jam ñaajo dem ministère waxtaani ñu ne fanaan mi léegi li ko dalee mooy bii passé laa lay wax de li ko dalee mois de premier janvier. ba 31 mai dañuy arrêté. ñu jëlee ko ñu ne li ko dalee aan ba Cap Skirring. ñoom ñëpp ñu ñu ñu waxtaan si benn awe ñu waxtaan si benn ba tëral benn convention locale ne ñoom 31 mai la ñu arrêté seen fanaan. Mhm. mais gis nga 31 mai bi mu demee ba ñëw. daanaka ñu si ñu si waxoon yëpp dañoo dañoo woon ni mhm. jifir tëjul boo xoolee fu laa fois ba gis nga ko li xew jifir mhm, gis naa ko la boo xoolee man dama doon dugg si panel yi déconné ñu ne ñoom mhm. Habib yëpp ñuy déconné parce que li waral loolu mooy nga toog ak say moromu góor ay acteur toog ñu ne 31 cinq mois lañu daaw bii ba cinq mois lañ def ñu ne cinq mois la fanaan ñu dem ba 31 mai ne duñu fanaan parce que dañuy continuer jifir moom ñu ne dañuy continuer mhm. yeneen dëkk yi nga xam ne c'est dëkk ndox yi ñoom ñu ne dañuy continuer mhm. léegi nag affaire bi commencé jaxasoo ndayaan moom it nangul tëj fanaanam mhm. léegi nag bu ko defee affaire bi gën a jaxasoo loolu dem ba si biir mu indi ay polémique moo li nga xam ne ñoo nekk jifir ñenn ñi nangu ne dañuy arrêté ñenn ñi nangu ñu ne ñenn ñi ne dañuy mbaali dañuy mbaali guddi ñii ne dañuy arrêté moo taxoon mu am benn conflit bu fa amoon daaw ba euh, ba yenn problème yi am si ñu jaa ñu arrêté si woon ay pêcheurs yoo xam ne nii mhm. tey ñu yàq ay dégg ñu yàqal ay marailleurs mhm. ñu arrêté leen ba dee am na si ñoo xam ne sax presque bi ñu leen di laara bay presque fay nañu loo xam ne valeur de deux millions la oh te xam nga loolu dafa nekk loo dafa metti mhm. waaw mais nag man li may wax. kon réeroo bi yéen yéen mooli la ci seen biir. ñun suñu biir la. ñun suñu biir la parce que moment bi may waxee ak yow am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon fanaan mi tëj. Mhm. mais am na si ñoo xam ne tey ñu ngi dox si suuf. Mhm. bu ñu sañoon sax ñu ñaan pour ñu yokkal leen. ñu yokkaat fanaan bi yokkaat fanaan bi. Mhm. xam nga affaire dafa du lu ñuy war a ñaan. lu ñuy war a tënk la. nit ñi tënku si. xam ni lii ay charte la wala ay charte la. parce que mais tant que état mu ngi jël ay mesures nañ def évaluation évaluation boo bëggee dégg-dëgg. mbiru tappale kese la. évaluation moom du lenn lu dul mbiru tappale. parce que tey bu nu ñoo toog ñu ne fanaan mi tijji nañ ko mois de décembre le premier décembre. si moment bi ñu bi ñu koy tijji si moment bi dañu waroon génn arrêté. dëgg la ne décembre lay commencé. mai lay tëj euh, dëgg la. mais bu ñu nee décembre lay commencé. Mhm. ba pare ñu ne mai décembre lay commencé mais balaa muy tëj lañu waxtaanal. Mhm. mais kon am na ñu ñuy nax. non loolu moom jaxasoo lay laaj. waaw am ñuy nax. Mhm. mais mais mais mais bëggoon naa am leneen lu may laaj mooy géej gi problème yi dafa bëri. ñii ni mbaalu caas ñii ni mbaalu fele-fele ñii ni fele-fele yaa ngi yàqal gaali ndaw yi ñii ni euh, fele-fele yi day continuer lan nga ñu mun a expliquer ci loolu problème yi am ci géej gi fanaan yeeg ñàkk d'accord beeg fele-fele yeeg yàq bi am ci géej gi lan la. xam nga jiili li tey sàmmkat ak béykat. bu ñu jotee. yow sa xel lum lay njëkk a jox mooy sàmmkat ba moo tooñ. Mm, waaw parce que tey tool ba déplacé wul. Mm-hmm. nag yee ñooy déplacé wu. Mm-hmm. kon nag. am na loo xam ne nii sax da nga ma koy posé mais yow en personne yow xam nga ko parce que yow mool ngoon jaar nga si géej <laughs> mool la tey mool bi nga xam ne dafa jël ay bagages am. mbir xamuñu ko nag mool la. <laughs> waaw xam nga tey. <laughs> Uh-huh. yow say bagage uh-huh. yi nga jël teg ko si géej gi. Uh-huh. bàyyi ko foofu. yow ñibbi nga. ak ki nga xam ne dafa ñëw indi ay bagages am. ñëw teg ko tàllal ko. yow imagine nga euh, nga jël sa nga teg ko tey mboojeen. ah nga xëcce ko palmarin. léegi yow ki nga xam ne ni tey bagage am mu ngi ko teg Joal. yow nga jóge Mbóojeen mhm. di di di ramasser di dem di ramasser di dem ramasser ba àkk ji mhm. kon yow ki nekkoon Mbóojeen teg fay bagage boo fa fekkee ba da nga koy buub yóbbaale ko bien sûr foofu la rek la problème bi nekk mhm. xam nga tey moolu gaal gu ndaw nappul yaboy moolu gaal gu ndaw tey moom li muy napp mooy yërëdë ak yéet mhm. moom loolu lay napp mais mhm. fele-fel lu muy wër du yaboy mhm. yow bu fekkoon ne boo boo tegee sa mbaal da koy ser mu taxaw benn place comme ni gars yi seree seen i ñu taxaw benn place comme ni gars yi seree seen i mbaal ñu taxaw benn place problème du am mais problème bi yëpp mooy mbaal miy dox la dañuy ñëw ser di diri waaw di diri léegi boo diree loo jot nga dagg loo jot nga dagg te wax dëgg neex yàlla yow la nga jàpp ne moom nga yow la nga defar ba jàpp ne yaa ngi rama yaa ngi seet sa mbaal di dem di si dundal sa njaboot mhm. kee lool la yaakaar moom la war a dundale njabootam bien sûr waaw léegi nag imaginel yow ma teg sama alal mhm. nga ñëw yow nga dem fanaan géej yàgg sama alal yëpp mhm. ba pare nga ooma si nañ nekk benn est-ce que mun nañ nekk benn ah déedéet yow lu ma saa yi ma waree jooy yaa may jooylu jooyloo mhm. ba pare ne ma nañ nekk benn te ku nekk xam ne ne gémmiñ guy nàcc du wax jàmm ah oui looloo am ci politique bi sax de dialogue bi jekku ba pare ni la kaa ñu waxtaan loolu mënul nekk loolu moom lu doy waar la donc lan nga jàpp ne actuellement nag mooy mooy mooy solution lan lañ mën a def ba géej gi normalaat moo li nekk benn di tëjandoo fanaan di ko tijjeendoo en même temps fele-fele ñu réglementé leen xam nga tey pour ñu nekk benn mhm. état kese moo mën a tracé parce que tey napp gi jaxasoo na jaxasoo koo xam ne état rek moo mën a tracé parce que tey jii dañu ne yuus dañ koy tere tey boo ñëwee Joal dañ lay tere yuus mais boo demee Dakar am na gaaleem ñu ngi fay teeral yuus te loolu responsabilité état la lu ma jaaxal ngi noonu voilà tey boo ñëwee teeral Joal ñu jàpp la waaw nga tëmbee Joal jaayi ko Dakar voilà léegi nag buñ ko xam nga boo ko permettre ki nga xam ne day teer Dakar jaay ko nga bu ko xañ ki nga xam ne dafa nekk Joal bu yàggee nit ki day gis boppam danaan benn Sénégal la waruñu fee nekk ñi ñuy tere Joal lii wala ñuy téré mbour li ba paré Dakar duñ ko fa téré té Dakar nek capital bi ëmb dëkk yoy yëpp nga xamné ne lépp lu ñuy dogal fa la wara commencé wacc ci ci ci ci si si yeneen dëkk yi waaw kon tay bu bu fekkee né fanan dem na ba tollu fi kenn kessé moko mëna ku la mëna wax né mën nañ ko lijjanti ku dul état day wax lu ko neex état kessé mo mëna tracé mo mëna ñëw mu ne géej gi ni la koy tracé depuis jël bés ni ko tay comme ni xam nga ren bo xol dañ ubbé ndo fanan ren dëkk yëpp Sénégal yëpp dañoo tijjeendoo ñoo tijjeendoo pourquoi pas mënul jël ay responsable mais Sénégal yëpp ay tëjandoo ah, kay bien sûr ku tijji kay war a mën a tëj waaw mhm. léegi nag comme léegi Sénégal ñëpp ay tijjeendoo bu desee loolu tëj ay nit ñëwaat dugg si ay bureau di ñaan ne nañ leen yokkal nañ leen may tabaski ngi jóg nangama gis nga fii saa yoo jógee pour def loolu chaque jour jàppal ne di nga yokk mhm. parce que dañuy faral di wax ne le bonheur des autres mhm. parce que tey si moment bi nga ne yaa ngi kontaan si moment bu am na koo xam ne yaa ngi si moment boo xam ne ni yow yaa ngi kee mu ngi kontaan si moment boobu ni yow mu ngi lay toroxal. li lay arrangé moo koy déranger. voilà léegi nag bu ñu demee ba nga xam ne dañu toll foofu. Mhm. dañu war a teg ay sart yoo xam yu leer la. Mhm. comme fanaan toll na foo xam ne tey metti na. Mhm. ñu ne léegi douze mois la. bés ñi ki tey dagg nañ ko ci digg bi amatul évaluation amatul daje fii amatul daje fee parce que évaluation yi ñu def nii yëpp naxee mbaay kese la dajale gars yi ñu ñëw si bureau yi toog bu ku nekk benn pér jom jox la ah wax yooyu moo yàq réew mi waaw te dëgg ba fa gars yi war a wax dëgg bi parce que boobu tey boo fa fukki nit nekkee mhm. kenn si wax dëgg mhm. te yow miy wax dëgg boo génnee dañ naan kii sax jaratul aussi yenn réunion yi mhm. parce que bu ñëwee toj toj kese lay wax te donte li nga wax ne vérité la dañu toll foofu. moo tax tey état kese moo mën a régler problème bi. Mhm. mais man ay évaluation am dama loolu yëf dañ ko war a jël ñu ranger ko teg ko ne parce que yëf naxee mbaay. kon yow jàpp nga ni fanaan mi actuellement weer bi dañ ko war a tëj. parce que fanaan moment bii wax ñu ngi si 6 mois. Mhm. te ku wax dëgg nee la ku mu aal mois guddi. Mhm. war ngaa mën a noppal géej 6 mois bëccëg. d' accord Sada ban kàddu ngay jeexale xam naa ne nag doyalu ma mais parce que lii moom il faut ñu def ci plateau spécial muy moolu fiir yeeg mool damay bañ sax gars yi pirate <laughs> nga xam ne moom ñu kii rek. Sada la man may fi may jeexale mhm. mooy damay oo si population Joal Fadiouth. Mhm. wala si napp Sénégal yëpp. bu fekkee dañu bëgg a nekk benn ñu wax ne fanaan mi moment bi ñu nekk nii comme fanaan nañ six mois guddi. ah nañu fexe ñu bàyyi ñu arrêté fanaan mi su mois de mai bii. Mhm. moo gën balaa fitna di si mhm. parce que la xew la xew euh, Ngor. Mhm. la xew ay ah. Mboro la xew Kayar ak ay ay ay Mboro. xew Jifir xew Jifir loolu mën naa dem ba xew fii. jàpp nga ni lii mun na indi jëye. non bu baax parce que moment bi may wax nii am na si ñoo amna tay nyu ñu ngi naan am na ñuy dox si suuf di ñaan pour. ñu mi mais moment bu am na ñoo xam ne ñu ngi dox naan bés bu ñu yokkee fanaan mi dinañu jaral suñu bakkan ñu jaamaarloog ñoom hmm? te xam nga ne loolu

mool yi di alerte li nga xamante ni moo di napp gi kon nag madame la maire yóbbante baa ngi noonu fexeel euh, ministre de la pêche gaaw a jël arrêt ñu tëj fanaan bi balaa tojante bopp di am ñu leen di jox dig daje ci fan yi rek incha allahu rabbi